fan yi ñu génn Sénégal lëmbe nañ ko woon ak acteurs yi actrices yi nga xamante ni ñoo doon wane seen i cër ci ay site internet waaye bi yoon théâtre bi de duutaat nañ ko baaraam gannaaw bi ñu ko yàggee dut baaraam ñi ciy nekk yenn saay ñuy def lu leen neex mu mel ni ki daal ñoom dañu ànd ak seen xel wala boog bës bi daf leen ëpp doole waaye bi yoon ci benn série biy daw ci télé Sénégal fii la ci biir réew mi suñu benn naataango siiwal na ne am na benn xale bu góor bu ci ëmbal benn xale bu jigéen waaye bi yoon xibaar bi moom nekk na xibaar bu doy waar nee nañu benn actrice maanaam ku jigéen buy joué ci benn théâtre fii ci biiram mi tey daw ci Sénégal moom dafa daal di wan lor ba mujj naa am doom yàggul dara nee nañu sax actrice boobule benn acteur bi mu bokkal la série boobu ñuy joué moo ko daal di ëmbal kon ëmbal boobu ñoom ñaar laata muy xew dañu sekkoon nag nobante maanaam coroli nekk loo xam lu dugg seen biir ñu koy dund bokk ji tamit di àndandoo di dem tournage di jouer seeni théâtre waaye bu jëntal ga daal acteur bi le moom nekk na beneen acteur ci biir nobante moom ak actrice boobu daf ko daal di ne réel ëmbal ko ba lépp daal di yëngu nee nañu xale bu jigéen bi mu amee doom sax yàggul te xale bu jigéen boobu nee nañu amoon na jëkkër waaye sëy ba yàggul durée bu gàtt la def den ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo kaw kawteef la